donte am na sax xëj na yow doo ko xam amaana ndax doo xam lu mu tekki am na ci yoo xam ne boo ko delloo ci luxatul abraniyati am na leneen lu muy firndeel dul li nga yaakaar nga koy seet ci barxatayhin karirin tatlayhin tuuraanin masjalin basjalin ak yu mel noonu eh, bil luxatil abraniyati laa bil laa bil luxatil dafay nekk beneen mbir mu taxaw yoo xam yi da xam ne mbiru rawxaan mbiru xuddaam da feeñ waaye beneen bi nga xam ne moo ci gën a am solo nag nee na gis na sëñ Mansour si ak Abdoul Aziz ci benn béréb ñuy julli defe naa loolu la wax waaye damay farataal di ko baamtu rek ruyatu saalihin wala awliya nit yàlla yi gis leen yiw la bu yaatoo yaatu waaye ñu jël ko ci ligne bi te ñëwaat ci ci gént gi balaa mu ci kanam tuuti incha allah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi bisimilah ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar bu wér. alhamdulilah. alhamdulilah waaye dama dama am gént bu ma gént. Mhm. bëgg maanaam nga firil ma ko. Mhm. waaw maa si woote woon sànq naan dama dama géntoon maanaam euh, dem barsàq. Mhm. waaw léegi ma am ñaari nit ñu ma àndal léegi bi ñu àggee ñu daan ñu daan ñu daan ñu daan ñu xooliloo benn waa benn affaire. léegi bi ñu xoolee loolu affaire boobu bi ñu demee ba ñëw ñu daan ñu daan ni xaarloo parce que dañ noo war a laaj kenn par kenn léegi ñu woo ñaar ñu ma àndaloon laaj leen man ñu bàyyi ma mhm. kenn laajuma. ñu laaj ñi bàyyi la. waaw. baax na. bismillah. shukran dinañ ñëw léegi incha allah. waaye balaa ñuy ñëw ci moom xam naa ni balaa ñuy ñëw ci kii ñu euh, gën ko leeralal mbir yi ndax nee dafa génn àdduna ci biir am ñu mu àndal dem ba ci biir mu am fu mu dem doon am lu muy lijjanti ñëw ñi laaj ñeneen ñi seeni xabaar te kenn laaju ko muy jaaxle ci lool euh, di laaj lu muy dekk laaj gi ak ñàkk laaj gi yëpp benn gënu ci. ndax euh, fi ngeen koy laaje bokkul ak fi ngeen nekkoon mu nekk ñaari mbir yu wuute nga génn àddina ñi lay laaj say xabaar wala ñu téye la taxawal la bëgg la laaj say xabaar te laaj ñu ne ko yaa ki ñi laaj kilaaxuma ala saway benn la maa fi xayru nañ ci bàyyi xel euh, waaye dañ ko digal mu génne saraxu nàkk dugub 41 fukk ñeent fukki dànk ak benn daf ci am solo lool euh, beneen bi ñi ñëw ci ki nga xam ne kii moo waxoon génn gi ci sëñ Mansour si ak Abdoul Aziz ñu ngi ñëw ci léegi waaye ñu jëkk ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. bisimilah. sëñ bi na nga def. ñu ngi fi sant bu baax. man euh, bisimilah. waaw euh, damay gént ay ginnaaw kër beneen bi damay génti chaque fois maa ngi fi euh, Europe mais damay génti chaque fois nekk ci pël nekk Sénégal mhm. waaw ñaari gént yooyu laa bëggoon bari looy lay nekk Sénégal te nga yaa ngi Europe jërëjëf incha allah dinañ ci ñëw léegi incha allah waaye balaa ñu ñëw ci moom dañuy ñëw ci ki nga xam ne kii moo ñu woote woon ci di laaj euh, Serigne Mansour si wa Abdoul Aziz gis Serigne Babacar si su doon aajo lay topp ah, yàlla dina ko faj su doon daa am lu muy séntu yàlla dina ko faj ndax ru'yatu saalihin fiihi qadaau xaajatin wa fiihi fatxun wa fiihi yusrun wa fiihi nicmatun gént nitu yàlla yu sell yooyu yiwu bari la xéewal la aaju gu faju la ci zahir ak ci baatin moom ñooñu la seen waajur xaaj maali doon wax moom laa waxoon léegi fala budda min shakwa ilallahi kurbati fa ma liya xayrallahi jaabiru kasrati wa qaraya baabal xayri allahu lam yufit li zaka sarafna nahwa babika wishati gis nga ñooñu loola ci yàlla woon ci seeni njaboot yiw la xéewal la ubbeeku la min jamiil funoon ci fànn yëpp euh, na ci bàyyi xel waaye beneen bi nee na ci ginnaaw loolu nee na gis na waajuram mu mel da ko gane si te génn na àdduna moog Baay Ñas ba tey it dañ koy wax ne ko waaye juróom woo mu gis te raxala ilaa jiwaari rabbihi munza qadimi zaman fa raahu fi lxulmi mu gis ko ci gént day tegtale ne rek na bàyyi xel ci njaboot gi mu bàyyi ginnaaw aar njaboot gi sàmm leen toppatoo leen kama kaana yuhibbuhu waaliduhu naka waajuram bëggee woon ci ginnaawam ndax waajur yi sell yi bu ñu génn àdduna ñu bëgg seen njaboot tegu ci yoon jàppoo déggoo ànd nekk ba benn atadaawan fi ma baynahum atadaawan fi daaxilil usrati wa tafaahum fi ma baynahum waa wal musaadaat fi ma baynahum yooyu yëpp waajur yi nga xam ne dañuy génn àdduna dañ koy sop seen njaboot ñi dimbalante waaye bu tasaaroo amee du gën ñàkk toppatoo wasaaya abaihim wa ajdadihim ñàkk toppatoo ndenkaay seeni i waajur yu góor ak yu jigéen ak seeni i waajur yi nga xam ne ñi ñoo jiitu ñooña muy seeni i maam dafay am solo lool ñuy toppatoo liñ di bàyyi ginnaaw waaye sopp na it nga génne leen sarax sarax bi nag na doon nàkk dugub muy ñeent fukki dànk ak benn waaye dànk bu ci nekk it sopp nañu nga dànk ko benn qul huwallahu ahad soo koy calculer di nga ci mën a am ñeent fukki qul wallahu ahad ak benn mu nekk tolloo ak ñeent fukki nakk yi ak benn nga def ko sadaqali wa cillahil karim ah, ñi ñëw ci mbokk mi nga xam ni nee na moom dafa gént gént gu ko jaaxal mooy day gént di ay dem àll ba di ko taq wala muy dox ci kawam wala mu di ko dëggaat ay dem àll ba nekk ci gént moom xul na zalika miraaran wa takraaran fiihi fatxun wa yusrun wa maalun kasirun yaati fi xayaatil insaan nit soo nekkee ci ñàkk gu tar nga gént dem àll ba dëgg ko wala nga ta wala mu taq sa yaram wala nga laal ko ci say loxo jàppal ne alal ngi waaj ñëw ci yow xëy suma kunta foo mën a nekk dem àll bay guddi tax boo ko dëggaatee yiw la alal la soo ko taqee yiw la alal la su taqee ci sa yére it yiw la alal la nañ ci bàyyi xel Euh, ama deuxième bi nag neen day bari lool gis boppam di ñëw Sénégal jóge Europe ñëw Sénégal wala mu mel ni ku gis boppam biir senegal te nekkul Sénégal nit bu nekkee bërëb gént di dem bërëb boo xam ne bi nekku fa yéexi yéexi am am la mu mel ni koo xam ne kii dafay gént di liggéey ci bërëb boo xam ne liggéeyoon na fa ba jóge fa jafe-jafe lay jur looy xaar da yéex loo dugg du gaaw a sotti balaa sotti day metti day jafe lool mooy génte gis sa bopp béréb boo xam ne bi nekkoo fa wala nekkoon nga fa te nekkatoo fa nañ ci bàyyi xel waaye nag dem àllawaay guddi moom bu taq yiw la àll la xéewal la nañ ci bàyyi xel waaye nag sopp nañu euh, loolu bu amee ci nit foo mën a nekk soo ko mënee fekkee ne bitim réew la nga génnee tàndarma su fekkente ne Sénégal la da ngay jël ñeenti paquet suukar benn bu ci nekk nga teg ci téeméeri dërëm soo xëyee suba teel nga gis ñeenti categorie nit yoo xam ne bokkuñu mustawayaat maanaam bokkuñu taxawaay ñeenti catégorie nit yoo xam ne bokkuñu taxawaay bi ci jëkk mooy nga gis mag mu mag mu mag tey dem jàkka nga jox ko benn paquet suukar ak téeméer nga gis nga gisit jigéen ju mag tey julli nga jox ko benn paquet suukar ak téeméer soo fa jegee nga gis li tubaab yi tuddee adulte mooy ko xam ne kii weesu na eh, àggul juróom fukki at mu ngi ci fanweer ba ñeent fukk nga jox ko ko ñeenteel bi nga jox ko jànq boo xam ne bi duggagul ci néegu sëy muy ñetti mbir yoo xam ne benn bu ci nekk dafa am lu muy jural nit ci wàllu sarax muy lu baax lool kon su ko mënee na ko def su ko mënul it mu seet ku ko mën a defal fii xayrun wa fii ni'matun Euh, su ko defee ñi ñëw ci ki nga xam ne kii moo laajoon ne nañ ko bamtuwaatal mbir yaasin bi dañu wax ne rek nit ki bu nekkee ci tolof tolof xat-xat jafe-jafe euh, na fexe di wird allahu yaa ganiyu mille cent onze ñu baamtu ko parce que bari na lu ko nit ñi di laaj bëgg ñi di leen ko indil ay leeral ñu mën di ko jëfandikoo muy allahu yaa ganiyu mille cent onze soo paree nga tëjee ko yaa ngi koy def suba teel balaa jant bee fenk nga boole ko ak wa samsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru aziz al alim 66 wa samsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru aziz al alim 66 soo demee ba julli tisbaar ba pare nga defaat allahu yaa gani 1111 nga dellu tëjee ko ba tey it walqamaru qaddarnaahu manazila xata aada kal urjuni l qadimi 66 soo demee ba diggante 6 heures 7 heures jant bi di waaj a fenk te fenkagul ci diggante boobu nga defaat allahu yaa gani 1111 nga tëje ko ba tey la shamsa yambagi laha an tudrika al xamar wala leylu sabiqu nahaar wa kullun fi falakin yasbaxuun ñetti ay yi nag dafay ay yoo xam ne yi Euh, li ci ëmb li mu ëmb dafa bari minal manafia ñetti aay la yoo xam ne mën na lu nekk ci ñi nga xam ne yaarifuuna qimataha haulaai l ayaati ñetti aaya yi yoo xam ne lu waay bëgg ci àdduna boo ko toppee mën na la ci ubbi mën na la ci jox mbir yi yaatu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne buñ ko doon lim na fii lañ fi yàgg te euh, manaafiuha ay njëriñam du jeex ñu jël ko